immigration clandestin bokk nga ci promoteur bi bi fi da bi fi njëkk a tëgg làmb wala nga fiy tëgg ay làmb journée bu nekk nga naan lutte contre l'immigration clandestin te ba nga koy wax boobu xewagul comme nii. boobu xeweegul comme nii xewi woon na waaye xewaatagul. waaw loolu nag ay alertes yu ma doon joxe la. mot gaa yi duñ ci bàyyi xel. jili ay ndaw boo leen jiitee da nga leen di yërëm iir leen aar leen. Mm-hmm. immigration bi neexul kenn. bu ñu sañoon ndaw ñi yëpp dañuy toog fii liggéey ndax dafa bëri ay danse jili dem bi benn danse la boo demee ba yegg risque la dem ba yegg sax moo gën a nekk risque ndax mun nga dem ba yegg toog fa ñu téye la ci camp détention yi duñ la bàyyi nga dem téye la fa ñaata at doo am kayit doo man a liggéey loo yónnee sa mbokk néew na nga gis sax ni dem ci ci biir deux ans trois ans ñu ne moo ci réussir néew na ba ñu ciy dem dañ ñàkk pexe moo tax ñu ciy dem état bi nañu organiser xool ay plan yu ñu teg pour jàppale jeunes yi jili par exemple tey boo génnoon dix milliards teg dix milliards rek laa la wax de mun nga ci jox deux mille sën kenn ku nekk cinq millions sën boo jox cinq millions ne ko liggéeyal du moom kenn rek mooy mooy liggéey cinq millions dina am ku mu dina ubbi bitik bu mel nii jël ko jël benn moromam yaa ngi dégg wala mu ubbi atelier jël ñaari moromam léegi boo jëlee benn jeune jox ko cinq millions mu jël ñaari moromam lool ñaata la du six mille personnes mm-hmm. ah mm-hmm. deux mille fois trois six mille jeunes chaque année nga ñu liggéey xaalis boobu nekkul may da koy teg ci commission boo xam ne bu ñu la joxee tey par exemple vingt millions yi pour nga liggéey la boo liggéeyee ci biir année bi dangay ngay verser ko soo ko delloo ñu joxaat ñeneen yaa ngi dégg seen yëpp dinañ am ci lu ñu jàpp dinañ liggéey waaye par exemple da ngay dégg fii ay ay ay ay financement yoo xam ne comme ni ma waxee boo amul baran loo sax doo si jot mbir mi moo warul demee noonu nañu créer xelaat dara bu amee da ngay indi xelaat indi xam-xam fexe nooy dakkalee loolu kaay leen ngeen ñëw financement yaa ngi nii nga indi sa projet ñu jox la nga dem liggéey soo liggéey ba pare 6 mois ñu dem saytu la un an bu matee nga versé 5 millions sans fii koo jox ko bëgg a liggéey may nga ko départ. bu nit ñi dem ci gaal nit ñi toog fii nii affaire bi métti amoo ci loo jàpp war a xëy jàkkaarloog sa famille jii di moo lay poussé si yenn yi. Hmm. ñi nga xam ne dañuy dem ci gaal yi gisaguma gaal départ ci liggéey góorgóorlu mm. fii nag liggéey fi day xaw a jafe léeg-léeg ngay liggéey muy métti mooy li may wax rek état bi nañu en campagne ñu nangoo liggéey mm. bëgg liggéey jàppale leen ñi ñu war a def référence si réew mi ñu def leen référence chaque jour si dëkk di ko wax mm. am na buñ ne jeunes yi nanguñu liggéey jeunes am jom ñoo fi nekk nangoo liggéey fi ñu nekk nii ki koy def sën la amul Mm-hmm. vingt yaa ngi dégg kon na état bi taxawu jeunes yi ci côté boobu ñi nga xam ni tamit dañ ci loru ci gaal yi ñu ngi mastawu seen i mbokk di leen di ñaanal yal na leen yàlla xare àjjana mm-hmm. gis nañ tamit la mel ay sénégalais yoo xam ne mm-hmm. bu ñëpp meloon ni ñoom ci réew mi yaa ngi dégg réew mi lépp normal jeunes yëpp am ci luñ jàpp mun naa la si tey ku ci mel ni père ba nu mu mel parcelle si ndakaaru sax la wax bépp jeune bu fiy nekk di góorgóorlu père ba jàppale na la géejawaay tey ñu sité ku ci mel ni sëñ Madoune Seye borom taw feex bakkan lay laaj barki démb rek laa dem pare sunkañ lu ma deux mille jeunes hmm. ay xale sëñ Medoune Seye dal di leen di dugal néegu góor gratuite di def lu baax géejawaay hmm. ñu mel noonu la ñu soxla ci réew mi ku ci nekk gox bi nga dëkk yàlla dénk la yenn teranga yi jëlaat ko nga delloo ko ci jeunes yi jàppale leen tey moom géejowee jeunes yi bëri jàppale fii si ñëw boo ñëwee ci parcelle père ba mu ngi fiy jàppale jeunes yi bëri tamit am nañ ko mel noonu feneen ak feneen lu mel noonu la ñu soxla ci réew mi na gars ñu yor yàlla dénk leen teranga nañu génnee seen milliards yi ñu denc ci banque yi jàppale si ñu amul doole ñu liggéey ñu mën a defar suñu réew mi man da xawma kañ laa xamante koo xamante ni dina mën a jàppale suñu waa koñ non incha allahu rabbi yow leer na ma xam ngeen ci koñ bi koo xam ne bonne volonté la yàlla dénk na ko commando laa fi xam te guddi gu jot moo ñuy jëndal reer ñun ñu fi nekk ñëpp mburu fukki dërëm defal ñu ci te xam nga ko waaw loolu sax si développement la loolu si jàppale ñi nga ëpp nga ñi nga ñi nga ten la nit ki boo ko tenee da koy dimbale am na ñu fi nekk def ay social mm. man kuy def social ñu lay critiquer ku deful social kuy def social ñu lay critiquer moo a gënal kuy deful social mm. dinañu tamit di taxaw def taxaw foofu seetlu benn international Papis Demba Cissé suñu xarit menn menn mi gis nañ la eh, kii lu mu def noo mu ngi ci biti di football jëlee jëlee. bu la yàlla noo du tuer. bu la yàlla joxee teraanga ci biti gestul ñi nga dëkkal. gestul say mbokk gestul say àndandoor gestul tay am di jàmm. Mm. gis nañ li muy def bi corona bi ñëwee gis nañ li mu taxaw waa dëkkam waa Sédhiou. Mm. gis nañ tamit ay xaritam. taxawaay bi muy am si moom ku ci mel ni Sadio Mané gis nañ ci moom loolu yu mel noonu la ñu soxla bu la yàlla mayee teraanga ci biti li nga am ci biti munoo fa puukure munoo fa def dara Europe boobu munoo fa def dara lu jaaxal tubaab Afrique nga am fi nga jóge ñëwal gestu leen kon Papis ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk ci Turquie Fenerbahçe année bi ñu génn moo doon deuxième meilleur buteur fi may waxee yow nii moo jiitu ñu ngi koy ñaanal xam nga lépp lu mu bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla defal ngi def lu am solo Turquie soxlawaat nañ nag ñu mel noonu nañ leen indi leen ci équipe nationale bi ñun attaquant yu dugal lañ bëgg. Papis Demba Cissé nañ ko indiwaat ci équipe nationale bi mu ñëw. am na solo taxawaat équipe bi jàppale waat jeunes yi ndax loolu lañ bëgg. ki nga xam ne de Papis Demba Cissé du ñu waxal nit lu nekkul ci man. mën a Sénégal dañoo soxla attaquant buy dugal. kon ku ci mel ni Papis Aline Cissé ñu ngi koy lancé appel solennellement. Mm. na jël ñu mel ni Papis. Mm. indi leen ci équipe bi défenseur ñoom Karamboj yooyu la gars ay gaynde pire ñii dugal di dugal ñii nekk ci défenseur bi di défense di def lu am solo kon Papis ñu koy nuyu di nuyu sénégalais yi nekk ak Turquie yëpp di nuyu ay xaritam ak ñëpp di ko ziar di nuyu sama xarit Thiar borom almadi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam jili te da sa bakkan wuli de man joxe na bakkan Papis Demba wulli joxe na bakkanam. man. kii di wulli ne joueur daa war a bëri bakkan. nee na Papis Demba Cissé warul yor benn bakkan ko fubalee a yor quatre bakkan. te yow xam naa wulli jox la ko benn yow ñaara nga ko. man sama bakkan daa for man bakkanu ñaari bakkan buy nooy si ñaari réew laa yor. bakkanu Sénégal bi laa yor. Ah. jox naa ko Papis. sama ruu nag per oh. per ba laa ko jox ak képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi. Ah. di jàppale jeunes Papis jox naa ko ko ak képp koo xam ne yaa ngi ci micro Wassare bi boobu ne ci réew mi di jàppale jeunes yi ku ci mel ni sëñ Madoune Seye boroom taw feex moom tamit kasaalika noonu per ba ka saalika noonu ñun ñoo fi nekk di jàppale nit ñi di taxawu jeunes yi saa yu mel noonu bu leen nit ñi gisee dañ koy wax valoriser ko ba ñeneen ñu mel ni ñoom def ko waaw di nuyu njabootu làmb yëpp di ñaanal ñëpp jàmm xewal sutura di leen ñaanal yéen waa Wassare di nuyu sama xarit baabu waaw artiste bu mag bi waaw non xam nga temps yi mu ngi ci ruxam rek di liggéey ndax moom tamit nekkul ci biti rek fàtte waa Afrique mm. mu ngi def yu am solo yoo xam ne xam naa bis bu ñëwee Afrique ah son yooyu nag na koy africain yi di déglu xam ne seen doomu ko wëy mm. waaw Seven si mook mook mook dañuy daluy ànd ah. toj nañ adduna de <laughs> non vraiment jiri nag déggoo anglais waaye man mi dégg anglais su ma la waxee ñoom li ñuy wax si son bi dootoo déglu beneen musique bulul boobu di nuyu sama xarit Pape Diouf mm. moom jëli dañu dajee Pape Diouf woykat mm-hmm. mu ne ma jamaïcain man askan wi ñëw ma bëgg di ma supporter waaye man maa lay supporter. lu tax mooy sa mangoo liggéey. Mm. sa am jom ku baax rek moo mën a loolu nit. maa ngi koy ñaanal moom tamit carrière am lépp lu mu ci bëgg yàlla defal ko ko di nuyu frère am xaadim. Mm-hmm. di Diouf di leen di ñaanal jàmm xewal di nayu tamit Masata Ndiaye. grand frère Aziz Ndiaye. Mm. ndax merci baat bu gàtt la waaye tubaab du ko wax ku deful dara. ñu mel noonu lañ soxla nit ki nekkul ne da koy jox. Mm-hmm. moom mooy waral nga jàppale ko mm. nga gis nit muy def dara nga woo ko gis ko na ko ah yow kat maa ngi lay encouragé ma motivé ko maa ngi lay maa ngi lay suivre li ngay def nii nangam nangam loolu acte yu am solo la ku la yëgul wala ku la bàyyiwul xel du la defal loolu kon moom suñu per boobu noonu ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm gis nañ taxawaayam moom tamit ci làmb ji mm. géejawaay du fenn ñu ci taxaw kon père Massata Ndiaye yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko xewal sutura mm. si barke Seydina dina dinayu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sama xarit comme ni ma ko waxee Mansour Ba moom tamit mu ngi Casamance di fa def lu am solo ñoom lu ñu jëlee ci askan wi ñu ngi koy delloo ci askan ñu ngi fiy tudd ñëpp man xaw ma leen vraiment ah, xaw ma leen dañuy def lu rafet xam nga man jili chaque jour li ma man jeunes yi man seen ambassadeur la mhm. dëkk bi dafa metti jafe-jafe yi bëri na jeunes yi ñu ngi découragé mhm. kon su amee ñoo xam ne nii buy cinq personnes wala trois personnes ñu ngi volontaire Mhm. yaa ngi dégg wala dix personnes yoo xam ñuy volontaire di dimbale seen yi ak fu ñu mën a ne buñ la xamee boo leen xamul wax ko. Mhm. man tey bu ma la ñëwoon romb la fii ngay def lu baax su ma ma ñëw laajte ñu ne ma kii jili la tudd moo koy def fii. Mhm. barki Seydina Mohamed dinaa ne ah jili de romb naa ko fële muy def lu baax. dëgg la ñu nuyu ngañ dem ba borom géej waay sama père Mbaw ñëpp maa leen di ziar ñaanal leen jàmm xewal sutura dina nuyu maam faatu sama xarit. di nuyu may ba borom nice and sit by Pulo di nuyu Codé Mbène Papa Gueye auto école. Hmm. ki ne Kanji borom Elinor service. àdduna bépp rek sama xarit. Uh-huh. Alaaji Ba. Uh-huh. borom kër Mamar Sarr. Hmm. di ko nayu bu baax a baax a baax a baax a baax. Hmm. di nuyu Mansour Bouna. surtout Bouna Ndiaye la maa ngi koy jaar bu baax a baax a baax. Alburi surtout Alburi la moom tamit gis nga lu mel noonu mu ngi koy def social. nekk ku baax am na ñu bari fii nii tey ay artistes yu mu jàppale. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax liggéey bu mu nekk yàlla jàppale ko ci kàttanal ko ba bépp projet bu mu bëgg a dugg rek yàlla defal ko si jàmm xewal. di nuyu tamit jiiri sama xarit loor Duwaañe maa ngi koy jaar bu baax a baax di nuyu waa Oldin Gueye. xam nga non mbër yi bu léegi day door te lëbëtu ci dara waa Oldin euh. Gueye. di nuyu waa Oldin Gueye di nuyu maam Jaara fala nekk. nekk fa patron maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Oldin Gueye yëpp sama xarit yi fa nekk yëpp maa ngi leen ziar di nuyu ñoom Babacar ñoom Diop képp ku nekk Oldin Gueye daal dafa liggéey man Jamaye Kemba maa ngi lay ziar di nuyu tamit let naa faat seen sàmb douanier chef de dépôt Moldo maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax. jërëjëf am na solo ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax jox ma ci dàll yi ñuy nuyuwaat bu baax a baax a baax borom MK Chaussure di sëñ Xaadim euh, mu nekk xale boo xamante ne xale bu am jom la xale bu bokk ci réew mi la xale la boo xamante ne àdduna bépp nawloo nañ ko boo xoolee dàll yi may sol tout le temps bu leen ma ko laaj MK Chaussure moo koy defar foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew mën nañ la koo indil euh, fi nga nekk. yóbbante la dàll yi ak ci prix boo xamante ni bu yomb la. Jamaïcain teel dàll yi gis ngeen dàll yi ni mu noonu macha allah moom la Jamaïcain di sol tout le temps man mi saa yu ma gisee di solal waa wasaare gépp moom euh, MK Cissir sëñ Xaadim euh, numéro baa ngi noonu bu ngeen ko soxlaa woo leen ko ci 78 239 49 91 78 239 49 91 wala nga def 76 511. 17 90 mooy numéro MK Chaussure mu jox la dàll yu rafet dàll yu mucc ayib nu sa tànk mën a toll rek boo yoree tànk yu mel ni tànk sëñ Basiru yu ndaw mën na laa defal yu rafet yoo xamante ni jaar na ci yoon yu mel ni jamaïcain wala yu mel ni sama bas mën naa nekk ñu koy jaajëfal bu baax a baax. jam Chaussure te lépp moom maak moom ñoo si associé di liggéey. jam Chaussure tamit ñu ngi ci. xam nga ku ci mel li ñu mel nii lañ soxla ci réew mi mu ngi ni jeune la. Mhm. kii amul 30 moo créé lii di ko liggéey kon réew mi. tey boo demee Medina ay jeunes ñoo fa nekk état bi bu amee nu ñu organiser rek Sénégal dox tubaab yi xoolal jili bu la ci kenn nax luñ Afrique am amuñ ko tubaab amatuñu jeune ay màgget la ñu dese ak ay paa. Mm-hmm. gis nga corona bi ni mu leen sonalee. Mm-hmm. corona bi nag sonal na adduna bi waaye tubaab yi la gën a laal. kon ñun Afrique suñ sën yi ñu yor. Mm-hmm. muy suñu meññeefu ëllëg nañ leen valoriser fonk leen ndax ndaw yi tey kat ñooy doon magi ëllëg suba. maa ngi leen di ñaan ñu bàyyiwaat seen xel ci jeunes yi gën leen a taxawu gën leen a dimbale état bi.